am nañu mbégte ànd ak yéen euh, mbokku internet téléspectateur Yegle TV di leen wax ne bu leen di fàtte di abonné suñu ay plateforme ba tey ñu ànd ak yéen ci seen émission wax feeñ wax feeñ tey dafa def déplacement ñëw fii ci jàmm gën Sicap Mbao bu ngeen ñu gisee ngeen gis bassin bi nga xamante ne moo nekk suñu ginnaaw ngeen xam ne fii euh, bassin boo xamante ne dañu fi déverser euh, eau de pluie yi mais cas bi mooy bassin bi dañ ko gis dafa fees ba tey boo gisee jàmm gën Sicap Mbao nit amu fu mu taxaw ndox yu salte yi ñi nga xamante ne dañu ubbi seen fosse yi

war ngeen a xàmmee ndoxu taw ak ndox benen budul taw. léegi eh, expliqué ñu li ndoxu la la. problème bi moy fi ba yalla tawee ba nopi la seni tambali tàmbali seen salte ku ci nek profito ci ubbi say say rigol ñi xëc sen sen sen sen sen force ya ngi ay tio commencé nga ci jëmele ni ndox bi nak ya ngi dégg liko gëna yok moy bassin ba feulé dañ koy bassin ba fu bassin ba ngi ci ya ngi dégg. ñu ngi ciy sant yàlla ndax ñu ngi fu mu ne nii di di di di commencé di bâtir sam-sam yaa ngi dégg mais dañoo tàmbali rek nawet bi ñëw moo waral ngeen gis fi lii mais lii daana taw ba pare mu xaw a rafet sax mais lii lu ci bëri ci biir kër yi la jógee. ça veut population bi ñoom ñoo def lii. waaw lépp luy am rek population bi ko def parce que tey jii ndox bi bu ñu ko drainer woon mu jëm bassin ba direct mën na am sax tey jii nii ñu am yoon boo xam ne nii xale nañ fiy jaar bu ñuy jàngee lépp ñu drainer ko mu normal mais tey boo fi jëloon peel gas pour ndox mi am espace rek problème ñëw ku ci nekk jàpp ne sa buntu ko dafa war a taa sam-sam mel nii mais problème bi mooy du ñëw sëkk sëkk sëkk sëkk. xanaa yéen booloo woo leen. non mbooloo bi ñuy wax moom desee desee am yaa ngi dégg fu mu ne nii Sénégal booloo fi moo jafe c'est comprendre baax parce que le bonheur des uns fait le malheur des autres tey jii boo ndox mi dafa jóge am na ñoo xam ne nii ci ndox mi la ñuy am li ñu ci la ñuy am seen dépense am na ñoo xam ne dañuy yàkkamte mu taw. ñu paré gëné pompe li ak li musala le maire samp naa fi sampuna fi samp naa fi. mooy seen maire. Euh, Habib Aliou Bey. mon maire bu bess la wala yag maire bu bess la te wax dëgg yalla il fait de son mieux. ñun ñi fi yeewoon nak ñun ñoko mëna défar ñun ñoo wara mëna bolo ñun ñoo wara mëna sax daal di toog waxtaan daane nañu xëc li comme tay ji ki na ñan gas ci ben combu gu ndaw go xam ni wala tay ñu ut tracteur bo xam da koy pantal ba nga xam dina mëna a dem bassin ba mais problème bi du problème à chaque fois maire maire maire maire population bi ñom ñoo wara juk yaa ngi dégg lu ñuy liggéey ñu liggéey ko ñun ñoo war a dépasser ay maire président maire président vice président ak yooyu ak yooyu ñun ñoo war a góorgóorlu suñu kéemtulaay kàttan ba pare moytu yenn yi ndax dafa ñaaw loolu nag dama koy wax ndox lu ma metti la bu tawee ba pare sa foos fees na bu ci profité di ko génne parce que tey ji sooy doom buñ ci doxul ay doomu jàmbur ñoo ci dox yaa ngi dégg yenn saa ay nit xuus ci waaw ndox mi metti rek la def waaw ñu woo nag ñu ñëw ñë autorités yi ñëw ñëpp ñëw jàpp ci ndox mi ñu dañoo sonn suñ fas yi sax amuñu fuñ ko tekki fii yëpp ndox la fii yëpp yëpp yëpp ndox la fii ci ginnaaw ak ginnaaw bassin yeeg dañuy maire yi nañ ñëw ñu jàpp ci fii ak terre bi mi ngi ñuy bëgg a rey ndox mi mi ngi ñëw fii dex yi di ba bàbbeeku di ñëw fii ci dëkk bi nañ ci dimbali te yàlla tax ndox mi son nañ ci lool suñ fas yi sax amuñ keroog bi mu tayee man sama fas yi amul ci biir ndox mi la fanaan fas ci biir ndox mi la fanaan waaw loolu nañ ci dimbali ci ndox mi sonn nañ ci trop. situation bu alarmante la ndax li ñëpp xam nañ ne lii ku ci dox sax xam ne métti na parce que ñu ngi dund ci condition yu métti métti métti ndax taw rek dafa métti waaye bu tawee ndox mi stagné ñu ciy xuus di jàll suñu doom yi suñu rakk yi surtout xale yi te ñëpp xam nañ ne ndox yi ñuy gis nii du ndoxu taw ndox yi nga xam ne bu tawee dañuy ibbi seen foos yi di ko ci jaarale ñu ciy jàllaat xale yi di ci daanu feebar yi muy yi muy causé rek mëno xam dégâts énorme yi muy def ñu ngi wo ñëpp ño xamne mën nañu dimbali ci li kiñ ci ñëk wo nak moy suñu maire di Cheikh Aline Bey di wax nañu gessu sonn nañ lool population Sam-Sam di mat sonn nañ trop ndox mi mom amuñu yoon pour génn ben ñaar les conditions ne sont pas favorables te it conditions yi ñuy dund ci ndox mi métti na lool ñu ngi wax autorité yi nañ ñu gessu te terre bi sonal nañu ndax ndoxu terre bi mo causer li yëpp dafa dag utal suñu terre bi sonal nañu lool ndoxu terre bi moo dagg utal si ñu moo ñu sonal lii yëpp ndoxu teer bi la moo ko causé boo defee nii ndoxu teer baa ngi foofu moo ñu sonal ñu ngi ci sàkku ndimbal ñi nga xam ne nag ñooy waa APIX ñu ñëw dimbali ñu ci parce que sonn nañ trop. waa koñ bi nee na yow yaay ànd ak monsieur le maire loo ci waaw maa ànd ak monsieur le maire Cheikh député honorable député maire. waaw maa ànd moom. ana li la maire jox pour waa koñ bi. maire euh, maire jox ma dara. maire am gis na ko. maire am maire maire amagul moyen joxaguñ ko budget tamit te maire opposant la loolu tax joxaguñ ko budget mu liggéey. mënul faj seen ndox mi daal. non ndox bi mu ngi ciy def mu ngi ciy def mu ngi ciy def lu ne parce que ku bàyyi ku koo xamante ne dafa jóge fee ñëw. di dugg si ndox bi di xuus ak ñëw di ñëw fii si bi fu nekk mu dugg fa këroo kër mu dugg fa ñëw di la masaw maire loolu la def wala yow li ngay ànd ak maire moo tax maire loolu def maire loolu def waaw di dugg di masawu nit ñi xam na ni métti na ñëpp fépp kay foo demee si koñ nañ ñoom mosuñoo am maire bu mel nii waaw première fois maire di ñëw di dugg si nit ñi di wax ak ñoom te miin nañ ko waaw. waaye maire daal budget la amagul ba mu toog ak ba mu léegi daal budget pour defar koñ bi daal la amagul. dixième daal décembre lañ ko wax. la koy jot amagul budget quoi. Mhm. ñoo ko wax. Ah, état moo ko wax. Mhm. ba nga ngay lancé pour euh, seen ndox bi si ñu ñu jàppale leen ci koñ bi. ñun bu ñu amee bu ñu amee drainage euh, kii pokolin rek bu ñu ñëw drainage drainage lii pour xam bu tawee ndox bi dina dem loolu lañ bug quoi. yéen est-ce que yéen xale góor koñ bi pare ngeen pour jël initiative bu ñu leen joxee bagage yooyu ngeen defal ko seen bopp. ci lañ nekk chaque jour ñu ngi si chaque jour ñu si loolu duñ si jógee gisoo. dañ doon liggéey nii léegi léegi xoj ngañ ci ndox rek yooyu noonu waaw. mais rek wax waa waaw ñu gën a jug rek ñun ñëpp ñu liggéey topp si ginnaawam ànd ak moom waaw amee projet jox doxal ko waaw loolu lañ bëgg daal.

jaxasoo fi nga xamante ne mooy jàmm gën euh, Sicap Mbao mu nekk situation bu méttee métti fii ci jàmm gën si Mbao ndoxu teer bi moo tax gis ngeen lii lii fàq nii bassin bi gis ngeen ndox bi ñun ñun teer bi ñun ñun bassin bi sax amuluñ njëriñ parce que ñoom bassin bi ñu fiy def nii ndoxu teer bi moo tax ñu def ko fi ndoxu teer bi fi lay deves lu jugee pikin ba ñëw fii yëpp am amul bassin bu nekk foofu bassin amul amul si diggante pikin ba fii léegi bassin bi lañ créé pour pour ñëw évacuer seen ndox. la bu ñu fii yëpp dafa feesoon dellu ba fële dafa feesoon ba fële si kaw tali ba tali bi amoo foo jaar keroog keroog woo nañ fi sous-préfet mu ñëw xool ba pare jël ay kiyam waaw woo woo directeur woo leen ñoom ñëpp ñu xool affaire yi tee bi daal coûté nañu cher daal waaw. hôpital bee ñu seen tamu dend ak bassin bi foofu ngay liggéeyee. waa damay man maanaam ci ñi menace foofu ci laa bokk. yéen naka ngeen di dundee eh, salte beeg ndox meeg eh, hôpital bi ak malade yi nga xamante ni ñoo fay nekk. waaw xanaa kay di dund dund bi metti rek ndax sunu médecin bi nga xam ne mooy Ousseynou Dramé wax dëgg yàlla moom def na ci lépp lu mu ci mën def na ko ci waaw. ba finalement mujj bi dafa dem ba nga xamante ni euh, mooy loolu waaw léegi mu toll dispensaire baa ngi ni que mun cee liggéey parce que ndox mee tax bu ñu amee malade xamuñu fu ñu koy yóbbu xamuñ dañ koy def. waaye bassin bi bañ koy ges xanaa xamuñu woon ne hôpital mu ngi jàkkaarloo moom dend ak. bi na sulaay yàgg na fi. Eh. hôpital bi yàgg la fi. hôpital bu hôpital boo xam ne doom judd na sax ba sëy si ba am ci doom. hôpital bi yàgg na fi. te maire eh, jot a jaar yëpp eh, ñëwul indi benn solution ci biir hôpital bi. Ah, ok mais xam nga comme ki nga xam ne moom mooy jiitu hôpital bi. depuis ginnaaw bu nga xamante ne bii bu feesee ndox te ñoom ku ci nekk sa sa xalaat lépp def nga ko ci. nag ki nga xam ne moom mooy yore dispensaire wax dëgg yàlla moom dispensaire bi moom jaral na ko lu nekk waaw sonn na ci loolu wax dëgg yàlla moom man moom xam naa ci dara. sonn na ci torop ku ñu mën a jàppale nag suñu dispensaire bi nga jàppale ñu te yàlla tax wax dëgg yàlla sonn nañ torop torop torop ndax bu ñu amee suñu malade du ñu xam ne ñuy defee moom ci biir ndox mi. waaw vraiment sonn nañu. ndox mi day dugg ba ci biir hôpital. ndox mi fees na dell fu ñu toll boo demee ndox maa ngay fees dell dell bureau yaag salle accouchement yaag yëpp a fees dell hôpital bi moom ndox kese la. ba léegi yéen naka ngeen di def bu nit dee am doom ci hôpital bi ak condition yi nga xamante ne moom ngeen di dund. xanaa envoyé ko feneen rek.

méttee métti waa jàmm gën si kàmbaaw di demander euh, aide ci autorités yi nga xamante ne ñoom mën nañ leen a jàppale euh, bu baax a baax di leen jox dig daje yeneen i wax feeñ ak yeneen ci yeneen i gox